ci waxtu wii filig mi ngi soob sunu boroom subhanahu wa taala ngeen ko daan séq ay at yu bare bare bari ak uh, al ustaaz alxaaji muxtar sekk xafidahu llahu taala ba yàlla dogal depuis daaw ndax yaram bu xawoon a sutante ñu santoon ma ma jéem ko ci wuutu ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu dolli ko wér ak tawfiq li ñu jàngee ci moom bari na bi ñuy gune lañu ko yàgg a topp ba tey jii bokk na ci ñi ñu njëkk a moom ak alxaaji rawxaan ak uh, al ustaaz Moustapha Guèye daanaka ñoom ci lañu gimmee di déglu mbiri diini ñu di ko wax di ko tekki tekki moo xam ne bi ngay dem ba di jàng sa niveau dégg arab di gën a yokk dañ lay gën a yéem ndax ne nu jekkoo làkku arab loolu génération bi tolloog ma nag bi ma jiitu tuuteeg bi tegu ci man xam nañ ci lu bare bare bari ah, kon nag ñi ngi doon topp tafsir bi ba taxawoon ci surata ali imran ci aya juróom benn fukk ak ñeent muy aya 64 fi sunu borom subhanahu wa taala di qul yaa ahlal waxal yéen waa téere yi yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen jotoon a am téere li jiitu alquran di wàcc ci yahudi yeeg nasaraan yi taalaw dikk leen wala taalaw yéeg si leen ndax kat da ngeen doon yéeg ci yéeg ngeen nekkoon de képp ko topp ab yonent yaa ngi ci yéeg ba yonent yi ñëw nga war a àggale sa yéeg ànd ak moom ñëw leen ngeen continuer yoon wi bu leen dog ci yoon wi wala ko defee di ngeen réer di ngeen réere laajte taalaw dikkis leen ila kalimatin ci baat boo xam ne neex naa wuyu li tax mooy sawaa'im baynana wa baynakum amuñu ca loo leen amut amuñu ca loo leen amul ñun ñoo ca yem suñu diggante ak yéen baat ba mooy lan mooy laa ilaha lu muy firi an laa naabuda illa mooy ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla wallahi noof laa ya ngi nii dafa juste maandu ki lay woo yow ak moom a ca yem mais dafa noppale imagine ko xam ni ne xawal ko kaay nga dem bu ko laajee ko kële ko sow bu ko kii liggéey loo lii kee liggéey ko loo ko lële moo tax musrik bi ku ko gën a texe di daal amut musrik day sonn moo tax li njëkk li may nit aafiya ak dund bu aisé bu stable mooy tawxid tawxid ni mu ci mel dara melu ko subhanahu wa taala ci njaatige rek ay njaatige metti na waxuma laak nag ci ay yàlla mu nee na baat boo xam ne mooy an laa naabuda illa allah bu kenn ku dul yàlla am wàll kenn ci mbind mi noonu la kenn ku nekk ñàkkee ci njaamu gi wallahi yàlla maandu na maandu goo xam ne jub na jub goo xam ne bu kenn amoon wàll ci mbind mi même bu doon benn nopp la sàkk ci ñun yàlla sàkk lépp ba mu des benn nopp wallahi yàlla dina ko jox wàllam ca njaamu gi bu doon sax benn karaw bi mu ñu yàlla bindee di ñu defar ba mu des benn karaw am koo xam ne moo ñëw defar ko yàlla maandu na maandu goo xam ne jub na jub goo xam ne dana jël ci njaamu gi lu tolloog karaw googa waa ji am ci mbind mi jagleel ko ko yàlla jub inna alayna lal huda inna rabbi ala siratin mustaqim yàlla ku jub la du tooñ xoolal waajur yi rek nga xam ni mbind mi ci ñoom la jaar xooleen yàlla ni muy tafee seen àq ci àqam wa qada rabbuka allaa taabudu illa iyyahu wa bil walidayn te pourtant sàkkuñu binduñu dañ daan ñaan naan yàlla nañu am doom bu leen ko yàlla joxul duñ ko am waaye mbir mi jaar na ci ñoom rek yàlla da leen a jox seen cër jox leen seen wàll wa bil walidayni ihsan wa id axadna mithaqa bani israila laa taabuduuna illa allaha وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك وإليه المصير الله ركمانه كن بني ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا موي كن أمول ولا تنجاموك دو ملاك بو جيغي يالا دو يننت بو خمنا دفا جيغي يالا دو ولي بو جيغي يالا أموت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نين تي نون باغا ولبتيكو جيل نينين تي نيوم ديف لين اي يالا خانا كاي بودون ووتال بوبام دانان سوف مان باي لي ني دون توب يي ген دن جام ген نيو توب ما جاموما ديدت نينا لولو موما وار مان مولين وار يين نينا لولو موما وار مان موما وار يي مولين وار يين لول لما يالا سانت لولو يت لا لي ني جوتلي مودون دين ادمه دي دين نوح دي دون ابراهيم عليه السلام ɗi dine moussa ɗi dine issa fa in tawallaw bu ñu dummoo yoo nag topp seen i bànneexu bakkan fa qulu chahadu bi anna muslimun nee leen leen seede leen ko de ba ca kanamu yàlla ne ñun day loolu la ñu jébbalul te pourtant kat maam ibrahim mi nga xam ni ñoo ko bokkati ngeen di ko woote woo di ko mbubboo woo di wax ne yéene ci gën a yey لولو نون دينم دي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لولو دون دين امام ابراهيم موي جامو يالا كينال كو بانكو بوكالي اك درر كون نك سيري لين دي نون فوفو لا نجاب باتي كانمو يالا يا اهل الكتاب يين ني امي وون تيري Limatu ma tuxaajuuna fi ibrahima lu tax ngeen di dàgg santeek ñun ci ibrahim yéen ngeen bëgg jël ibrahim def ko seen lay ba koo aakimoo ni yéen yéenay waa ibrahim ibrahim ci yéen la bokk ibrahim su fekkee ne ci wàllu judd ngeen wax ak maam Ibrahim moo jur Isxaq Isxaq jur Yaqub du dëgg Ibrahim moo jur Ismail Ismail moo jur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même descendant la benn maam ñoo ko bokk su bee ci wàllu woowu ñun ñii topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yéen ëppalewu ñu ci Ibrahim daa jur kooko jur du jur di jur di jur di jur di jur di jur di jur ba banu Israil ci lañ génn Ibrahim it moomu moo jur ca seneen soxnaam sa wala ci soxnaam sax Ismaayil ca seneen soxnaam sa Ismaayil Ismaayil di jur di jur di jur di jur di jur ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn Ismaayil maanaam jur kooku mu jur ñooñu jur ñooñu jur ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon nit dañuy topp maanaam askan di ci. خوتل خوتل خوتل خوتل خوتل كيف في جسم من من نعم لا دوكو لولو كان لخو مدن دنيو توب رك دي أسكن خوتل خوتل أسكن كيف في جسم من من نعم لا دوكو ده لولو كان لخو مم آدم بامبر لون ولا سيري لون تكلور هم كيف مو من السيسي ما يفوفو مم بامبر لون ولا سيري لون تكلور maam Adama alayhi salaam doomam yëpp dee nañ ba mu des nuux ak ñi nuux jur waaw nuux moom lan la woon bambara wala séeréer wala tukulóor wala tubaab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee cosaanam da nga gis ne hébreu la ndax maamam du Ismaïl du arab dafa nekkoon màkk Ibrahim daf ko indi ak yaayam màkk dara amu fa ba ndoxu zam-zam génn fa arab yi ñëw fa mu màggee ci seen biir. sëy jël ci jël ci soxna loolu moo dem ba indi li waaye yonti yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam surtout maam Ibrahim la te Ibrahim du arab alayhi salaam waaw kon yéen léeg-léeg ñuy dàggasanteeg ñun ci Ibrahim bëgg ko akimu wa ma unzilat tawraatu wal injilu illa min baadi su fekkee ne sax téere yi ñu wàcce yéen yahud yi ngeen ne tawraat Muusa ngeen topp yéen nasaraan yi ngéen ne injiil ngeen ne Isa ngeen topp ngeen ne injiil mooy seen téere yéen yahud yi ngeen ne tawraat mooy seen téere ñaar yooyu yëpp wàccuñu lu ci ginnaaw Ibrahim alayhi su doon ñaar yooyu ci Ibrahim la la ngeen ne yéen moom ngeen jël kon bu boobaa sañ ngeen sax wax ne yéen a gën a yey ci Ibrahim waaye yooyu Ibrahim dem na jóge na fi te ñaari téere yooyu amuñu wàccuñu ci kaw suuf. kon noo leen ñu mën a ëppale ci Ibrahim afala taqilun dafa am mbir yoo xam ne mbiri xel la am mbir yoo xam ne mbir mbiri xel la ne suma kër gii moo gën sa kër gële ah lu tax man maa la gën a yeey ci sunu maam te ñu bokk benn maam te sunu maam musul gis kër gi musu cee dugg kon kay suma kër gi nu mën a gënee sa kër bu fekkoon ne sunu maam dafee baye kër gi def fi limu fi def kër gi barke am fi man ma ñëw fété ci kër gi yow nga fété ci Allah ba benen kër man na wax ne gañe naa la ci waye mum kër gi amut yéen kër yi ngeen wax yi ngeen wax tawrat ak injil amul lu ci ginnaw ibrahim alayhi salam kon loolu ñu ëppale ci ibrahim alayhi salam ndax tawrat ak injil afala taqilun dafa am mbir yo xamne mbiri xel la xana do len xellu خنا doo leen ها أنتم هؤلاء ينجني حاججتم داغا سنتين ديسكتين وخين فيما ليس لك فيما لكم به علم تي لو خمني ام ген تي خم خم تي ميري موسى اك عيسى لب لو نتي واخ مو ووتيك دغ القران داكو اكوردي يونت صلى الله عليه وسلم داكو نانغو يونت صلى الله عليه وسلم نيول ني اه افير موسى اك عيسى اي افير ليبك لبون ولا رك موسو في جار امو في yii ngeen wax amu fi déedéet dañ leen ko reconnaître ak seen histoire ñu dëppoo ci lu bari li ci aju ci wàllu pas-pas boo leen comprendre ngeen réer ci rek yahud yi nas nax leen ci yéen nasaraan yi foofu la ñu wuuteeg yéen te yahud yee gën a xam du doomu yàlla seeni ponkal yi ñoo gën a xam du doomu yàlla loolu di la ñu wuute waaye su dul loola li ngeen wax ci ñoom ñëpp ci njub ak dëgg ak leer ak jóge ci yàlla ñoo ci bokk yam فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم لي خمن نك امول انت خم خم لول انت جوغ نك لغي دي تي واخ من نين يام تي لي نين ام خم خم لول دا نلن جوخ ماندوتي با يومبال لين نين نانغول ني ام خم خم تي لو خمن يين امول انت خم خم موي تيري بي يالا واتي تي مان مو ديف خم خم بو لير بو خمن يالا مي واتي وون تورات اك انجيل ديف تي خم خم بو خمن كو تي جيلي وول وون دا نغا رير مو واتي القران ديف تي خم خم بو خمن كو تي جيلي سانكو wallahu yaalamu mbir mi du dama digganteeg yéen suñu diggante ak yàlla la mbir mi du suma diggante yéen ni maa leen gën a xam wallahu yaalamu yàlla moom moo xam wa antum laa taalamuun yéen xamu leen li ngeen xam lépp mooy li ngeen jëlee ci téere bi te yàlla wax ko ku ci wuuteeg yéen ci jamono yooyu balaa alquran di wàcc kookoo réer ndax kooka yàlla dafa xam wax ngeen nangu kooka bañ a nangu téere bii yàlla wàcce ci man tamit noonu ku ca wuuteeg ñun yaa réer ndax yàlla moo xam yow xamuloo maa kaana ibrahimu ñëw leen yàlla leeralal leen mbir mi ibrahim nekkutoon yahudiyan ab juif wala nasraniyan wala wala nasran ndax ibrahim jiitu na Muusa mi nga xam ne yéen yahud yi ngeen ne seen tur foofu la jóge moom ngeen topp ibrahim jiitu na Isa mi nga xam ne yéen nasraan yi ngeen ne seen tur yéen a ko jëlee ci daaj biñ ko daajoon Ibrahim jiitu na ko di kon Ibrahim nu mu mën a nekkee juif wala nasran maam Adama nan la mën a nekkee bambara wala séeréer te maam Adama jiitu bambara di am wala séeréer di am du sotti du sotti maa kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan bu fekkoon Ibrahim dafa ñëw. ginnaaw yahudi ya ginnaaw Moussa yahudi am wala ginnaaw Isa nasaraan yi am bu booba mën ngeen a xëccoo ci naan moom nasaraan la woon Moussa euh, Isa la toppoon wala yahud la woon Moussa la toppoon waaye Ibrahim da leen jiitu Ibrahim nekkul woon yahudi nekkul woon nasaraani walakin kaana xanifan musliman waaye diina ji amoon nga xam ne moom la fi maam Adama bàyyi mu demoon ba dee diggante Nuux ak Ibrahim diina ji daan na fa dem ba dee. ibrahim ñëw dekkal ko dekkil goo xam ne deexatul deexatul deexatul ba yonent bi ni ñëwee ba ilaa yawmi diin ba yàlla bëgga a tukkal àdduna ci lay rey ñëpp ñuy diine woo diine jooju ci ngelaw lu sedd ñu dem yéeféeri des fi wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun ibrahim ii salaam baatu laa ilaha illa allah daf koo bàyyi mu des fi ci ginnaawam ndax ñu mën cee dellu ndax ñu mën ci dellu kon nak ibrahim doon ab yahudi doon ab nasaran waye kana hanifan dafa doon ko xamne ku xëccu la di daw bokale musliman doon ku jebal bopam yàlla lépp wama kana min al mushrikin mom ibrahim nekul won ci bokkaalekat yi ibrahim nekkul woon ci bokkale kat yi loolu daawu ci négocié sax loolu daawu ci négocié sax moom ibrahim alayhi salaam bokkul woon ci li muy négocié bokkul woon ak li mu mën a àndal li mu waxoon inna buraau minkum wa mima taabuduuna min duunillah yéen ñii jaamu leneen lu dul yàlla ñun day set nañu ci yéen wa mima taabuduuna ak li ngeen i jaamu min duunillahi lu dul yàlla kafar naa bikum weddi nañu leen وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا تيت سنو ديجن تيجين نو نو أك بجن تفاجنا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بكرو جين جم يعلمهم دونك إلا قول إبراهيم لأبيه خنا لا إبراهيم وخون باي بلا أستغفر لنا لك وما أملك لك من الله شيئا دنا لن دنا لن جيجلوا waaye loolu mu ngi ko xam balaa muy xam ne kii kat day dee ci kéeféer fa lamma tabayyana lahu annahu aduwu lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwaahun xalim kon nag kaana xanifan musliman moom ab xanif la woon mooy koo xam ne dafa jéng dummooyu lépp luy bokkaale musliman jébbal boppam yàlla ba mu mat sëkk wa ma kaana min al mushrikin bokkul woon ci ñi laax laalo jaamu yàlla di ko boole keneen déedéet inna awla nnaasi bi ibrahima nee na ñi gën a yey ci nit ñi ci ibrahim kaa leen ma wax leen ko du xëccoo geeg kii naan man la kenaan man la ñi gën a yey ci ibrahim ci nit ñi xam nga mooy ñan lalladina tabauhu mooy ñooñu ko toppoon mu leen di woo ci jaamu yàlla moom dong weddi lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla ñooñu topp ko ñooñoo ca gën a yey xoolal ma de وهذا النبي اك يننتبي والذين امنوا اك نيغا خامني نيوم ньо گم يننتبي والله ولي المؤمنين يالا موي كي فيتيك ني گم يالا سبحانه وتعالى گيس نغي يننتبي صلى الله عليه وسلم ليكو يالا جوخني مو ماندو ني گنا يي سي ابراهيم وخول مان نيكو توپون تخ يننتبي صلى الله عليه وسلم دفا ام اي بوين دي ديبار يو جوب يو ماندو يو باخ té ki nga xamni bopam ko yittel day faté même bu bëggon naxaté sax duko mëna régler ni il faut mu faté ma ci gëna yey ndax man nangam ak nangam bu ko waxon sax mu doon deug waye ki dul faté mom moy wàcce ci mom alquran ji du faté ben raison ben logique ben lo xamne deug la bu wara taxaw fam wara taxaw mom yàlla subhanahu wa taala du ko faté ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم dicri ذكر الحكيم إن أولى الناس بإبراهيم inna أك نيوم bi يورنتدي ñun أك يهود يك نصراني ها من كان مو غنا nasaraan yi ah مجيجي بوبم جيجي ني اندك موم موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه ني اندون اك ابراهيم عليه السلام مي كي نيول بور دي نينال دغ بور دي تخاول بوبم دغ دونغ موكو ييتيل داخ ابراهيم دا امون نيكو توب گم كو داجك موم اي چونو ньо ньо ci gëna yeey wa hadha an-nabiyyu ak yunit bi nga xamne dañ ko wax wa tabi' millata abika ibrahim mu dadi ci top yam ci wal ladina amanu ak ñi nga xamne ñom ñoo gëm ñi nga xamne ñom ñoo gëm بني خينان أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين دون كوي وخ سايو خي ديكو وخ اك نغون أن امسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين خي نانيو بو أن ني غونتي نانيو فطرة الإسلام moy moñale gi set gi yàlla moñale jami bobu nga xamne bokale nekut ci ñom ala fitra islam ala kalimatil ikhlas ak ci kaw kàddug selal muy kàddug la ilaha illallah ci lañuy xeye ci lañu gonté asbahna am sayna wa ala din nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi xeye ñi ngi gonté ci diine suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina ibrahima waaye ñi ngi xëyee gonte it ci yoonu ci yoonu sunu baay Ibrahim xanifan mu doon koo xam ne ku xëccu la di sori bokkaale musliman di jëm ci jébbalul yàlla subhanahu wa taala wa ma kaana min musrikin loolu bokk na ci adkaaru suba yi ngoon yi wérdi suba yi ngoon yi nga xam ne ñi ko xam-xam nañu ko ñu ngi koy def suba su ne di ko def ngoon gu ne waaye am nañu ko xamul maanaam mokkaluñ ko duñ ko wax waaye bu dee lislaam ndéem lislaam seen seen diine rek ñooñ ci loolu la ñuy xëy ci loolu la ñuy gont moo tax mu ne walladina amanu walladina amanu ñi gën a yey ci ibrahima alayhi salaam mooy ña ko toppoon ak yonent bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm wallahu waliyul muminin yàlla mooy ki féetewoo ak waay gëm yi wadda taifatu min ahli lkitaabi law yudillina yow yudilluunakum nee na ngéeju na bëggoon na ab kuréel ci ñi nga xam ne ñoo yore téere yi jiitu law yudilluunakum buñ leen réere loon loolu lañu doon géeju picc mu lakk day bëgg moroom picc mu day bëgg moroom topp nañ seen bànneexu bakkan dem nañ ba réer wër leen ba nga xam ne seen bànneexu bakkan jëfe na lañu ñu moom ba nga xam ne ñi ngi seet ay su ma xëyoon rek ñëw ne dëgg la waa ji li muy wax dëgg la nit ñi lan la ñuy wax te daaw fii maa waxoon ne du dëgg maa xeexoon ak moom ma nangam te am ñu ci dee sax ndax man am nañu ci perte seen bakkan ndax man waaw man suma loolu desal ko ci wërngal booba mu bëgg nag yéen ngeen dugg ca wa maa yudilluuna illa anfusahum effort bu ñu def liggéey bu ñu def pour réeral leen réeraluñu sànkuñu ku dul seen bopp wa may sóoroon fekk ne ñoom yëguñu te li gën a bon ci topp réer mooy booy commencé dalay alerte maanaam tiit mu wóor yaa ngi gis bouton bi ci sa xol mu tiit feu rouge bi mu naan tiit feu rouge bi nga topp sa bànneexu bakkan bañ ko faale day dem ba tiit boobu day taxaw day dem ba day nekk feu ci yow sax maanaam day mujj dem loolu nga xam ni mooy neen gi nga doon xam ne neen la nga topp sa bànneexu bakkan di ci woote di ko defendre day dem ba nga am guubi nag subhanallah nga mujj gëm ne dëgg la boo gëmee ni dëgg la nag dootoo yëg dootoo yëg ne yaa ngi réer di musiba la da foog ne yaa ngi ci dëgg yàlla nañu yàlla musal ci loolu te loolu day dal boroom woote ci kéeféer day dal wootekat ci bidaa yaa ahlal kitaabi yéen ñi nga xam ne yéen a jotoon am téere yi ci jiitu li ma takfuruuna bi ayatillahi lu tax ngeen di weddi rek di suul li tax ngeen di suul al kufru cosaan bi mooy suul nëbb tegtalu yàlla yi mu leen jox te mu nekk seen téere yi mu ngi ci seen loxo lu tax ngeen koy suul ma tax kufur kafara foo ko fekk ci arab du toujours rek yéeféer suul ndax yéeféer bi dafa suul tegtal li ko yàlla jox yépp toog ci kawam nangu koo jëriñoo moo tax ñu ne ko kaafir sun borom subhanahu wa taala nee na ka mathali gaythin ajaba alkuffara nabatuhu ba muy joxe misaalu yonent bi salallahu alayhi wa sallam wala àdduna mu ne mi ngi mel ni taw moo xam ne ajaba alkuffara nabatuhu يفري دنيوي أصفر لا بيكتي الكفار فوف بيكتي بيكتي دنيوي يمو شيغان تشهو تومم فوف دو كفار بي بيفر يغيظ ليغيظ بهم الكفار بوبو يفر ليتك نانا كون لوتاخ نغيني سول لوتاخ نيو بيكات نيكوي واخ كافر موي موم داي غاس دي سول داي غاس دي سول kon li ma takfuruuna bi ayatillahi lu tax ngeen weddi tegtalu yàlla yi te mi ngi ci seen téere yi ngeen gis ko wantu wantum tashhaduun te fekk yen yéen a ngay seede xam ne kii kat mi ngi ci suñu biir téere yii ne yàlla ko yónni diine ji mu ko dox dëgg la salmaanul farisi moom yàlla subhaanahu wa taala jaaraloo na ko ay jaar yoo jaar jaar yoo xam ne xam na ci lu ko leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ ba moom mi ngi doon seet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di njëkk di di di di di di di ñëw Madina. moo ko njëkk Madina sax ndax di wër rek dëgg ba far am ñu mu taseel ñooñu jaay ko di wër dëgg di jaar ci prêtre jóge ci prêtre ba prêtre bu mujj ba mujj ko wax ne jeex na ku prêtre buy waaj a dee rek daf koy wax waaw yow koo may tegtal sa ginnaaw yaa ngi nii di sukuraat mu ne ko diw di beneen prêtre bu baax mi ngi ci dëkk sàngam mu dem fa ba ku mujj ki nag moo ko wax ne jeex na lii ma gëm nii di ko dund gisatuma ko koy dund waaye yonente ngi waaj a ñëw ndeysaan mu nekk ci wër googu ba am ñu ko yóbbu jaay ko Madina moo tax moom doo xam muhaajiruun yi nga koy boole wala ansaar yi ndax moom bokkul ci waa Madina dëkku fa waaye it jógewul Màkka jógewul feneen ñëw Madina gàddaay si ndax diineem waa Madina waa waa muhaajiruun yi ñoo ko fa fekk moom Salmaanul Farisi ba ñëw di wër yonent bi joxoon nañ ko màndarga yi di ko wër gis na mandarga bu ñëk bi dafa ñëw ñëk indil ko tàndarma bi mu ñëwé madina ne ko dama gis ne da nga and ak ay nit ay étranger ma ñëw indi sarax nee na ma gis ko mu jël sédel leen ko mosu ci nee na sama xel ma ne benn na ma xaaraat dajalewaat tuuti tàndarma ma indil ko ne ko dama gis ne yow do lek sarax ma ñëw jox la li hadiya dama la ko may bi lek may sahaba yi na sama xel ñaar na ma ñëw di wër ndax tampon biñ ma waxon ci ginnaw nee na mu xam mu nànd xam ne am na lu may wër mu yëkkati sër bi mu taraxlaayoo woon ñoom li ci gën a bari dañ doon taraxlaayu sër nee na mu yëkkati ko def ko nii nee na ma gis mandarga ba ci diggante ñaari mbëgg yi ma daanu ci kawam di ko fóon di jooy di ko fóon di jooy di ko fóon di jooy ba mu xëcc ma wëlbati ma indi ma ci kanamam ma nettali ko sama histoire mu ne ma nettali ko saxaaba yi ridwanullah alayhim yàlla nañu yàlla defal tawfiq kon foofu la ñuy taxaw ba euh, suba incha allahu ci waxtu wi نو أجلوات فني تولون والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ونبي محمد وآله أجمعين seen émission saytu di ñëwaat alxamis bi fanweeri fan ci weeru avril gannaaw émission mbas ministre de l'intérieur Aly Ngouille ak naataangoom maître Oumar Youm yore dem beeg dikk bi ñoom la Abdoulaye Bari di dalal waxtaan wi di tegu ci laaj yu bari nees mën def ba askan wi mën a sàmmoonteeg digle yi di muccule rek ci mbas ndax du dañoo war a yokk dogal yi rawatina ci oto yi seen émission saytu dina ci indi ay leeral alxamis bi lay doon fanweeri fan ci weeru avril gannaaw émission mbas mi ngeen mën a bokk ci waxtaan wi woote en direct ci 33 849 12 54 saytu ak jëwriñ yi di maître Omar Youm ak ali Ngouille Ndiaye lañ ci àndal mbokki jullit yi gannaaw leen poste cash carte visa bi pop jamono poste Wand di transfert d'argent le moins cher au Sénégal jot naa ci yónnee léegi jot léegi groupe La Poste moo leen di ñaanal weeru jàmm nous sillonnons les rues les villes et toutes les routes du pays pour votre bonheur Suivez votre commande en ligne et payez à la livraison. particulière ou professionnelle, votre pli colis ou marchandise est livré en moins de 72 heures, où vous voulez, partout au Sénégal. Jotnassi, c'est la fiabilité et l'assurance. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jot Nassi, un service de la Poste qui rend heureux. Oui, tous nos clients sont satisfaits. Jot Nassi, nous livrons partout. Dites juste où et quand. امين امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم